salaamaaleykum man la maye ko Diouf maa ngi leen di nuyu patriotiquement Ousmane Sonko day bokk ndax Ousmane Sonko mooy suñu candidat pour les élections présidentielles de 2024 li nga xam ne nag gis ngeen ko muy fexe faagaagal candidature Ousmane Sonko dañuy jéem rek waaye li yàlla dogal dogal na ko ba pare ku ne am nga sa candidat waaye koo ubbi xolam Ousmane Sonko nga fay fekk Ousmane Sonko est le candidat par le peuple di dox nag ngeen gis ko c'est la stratégie de Pastef ndax nag képp ku nga xam ne candidat la jóge ci Pastef dañ koo war a jëmmal ba nga xam ne lii di suñu projet danañ ko jox le maximum de chance pour que ñu mën a àgg ci jongante 2024 Ousmane Sonko dañ ko wóolu Ousmane Sonko dañ koy déglu te parti bi xam na fi mu jëm xam na li nga xam ne moo nekk suñu kanam enjeu bi ak nan lañ ci war a defee kon nag képp ku nga xam ne patriote nga képp ku nga xam ne sympathisant nga xamal ni yow yaa yore le drapeau du parenage te le peuple moo am cëggalu guyam li mu bëgg kese mooy am nañu fexe kon ba moment bii nga xam ne ñu ngi koy dund muy moment parrainage doon une véritable fête pour le Sénégal pour Pastef mais aussi pour jëmmal li nga xam ne mooy projet Pastef mais aussi gën a jëmmal li nga xam ne mooy vision du leader et du président Ousmane Sonko le projet de Pastef est une philosophie de vie dañ ci liggéey depuis 2014 ba mu agsi fii nga xam ne moom la ñu toll kon nag acte bi ci mucc mooy nan la ñuy fexee ba Ousmane Sonko nekk le président du Sénégal ku ci nekk ci ñun ci lim ci mën dana ci def kéemtulaay kàttanam le projet est en marche pour les élections de 2024. Et Inch'Allah, nous allons gagner et le système va tomber. Wassalam.